gis nga sëñ Ciidi moom sëñ Naar Jenn moom Cheikh Isaa Jenn xalifa bi yebal na waa kër maam Cheikh Rafaala nga nee waa kër sëñ Daaru Asan Njaay nga nee waa kër sa waa kër waa kër nga ne waa kër sëñ Adama Guèye nga ne cheikh yoon wi ndax ñoo doon liggéeyal sëñ Touba kon lii nga def cheikh yi nga ko defal waaye nag sëñ Touba président dalalal sa xel sëriñ Touba ñemewul bor dafa mën a fay ku liggéeyal sëriñ Touba mu fay la ku liggéeyal sëñ bamba mu fat la te ku sëñ bamba fat doo fa naan def nga lu kenn deful ma ni def nga lu kenn deful xal yi nga xal jële ko ndakaaru boo julee takkusaan tisbaar Tuuba julee ji takkusaan ndakaaru dañ ko daa dégg tali bi ak pax ak yéeni taalibe yi ku wàcc bala ngaa yegg si sonn fanaan ba bët nga doog a gis sëñ bi léegi boo yegg see balaa takkusaan nga jàkkaarloog Cheikh Mamadou Mountakha moom Cheikh Mamadou Bachir moom xaadim borom nit ñi Mamara Sali Chine ba président yaa ko def mais président def nga leneen hôpital baa ngi nii président def nga leneen assainissement baa ngi nii président def nga leneen xoolal poroxaan nga ni dinaa defar këru poroxaan poroxaan soxna jaaratulaahi soxna Mariama Bousso liggéey bi yëpp maam jaara waaye président procès da ngay maaseeg moom boo maaseeg moom yeggale ko ku yeggale sëñ Bamba procès boo bëgg yeggale ko yow la ñu jox kàddu gi na ñëpp déglu bismillah dem dem fii Touba la. amoon sëriñ. bàyyi leen leen bàyyi leen leen laissez-les venez laissez-les arriver bàyyi leen leen waaw jànkati xasida yee xaaral moo leen leen محمود نبرتنا نجل مكة أحمدنا رحمتنا حميدنا نعمتنا محمود نبرتنا وليد سن بامبا سواي دنيا واي كنن رحمتنا رسول لكم ديكم li tax ñu def lii li tax ñu def lii mooy yow li nga defal Serigne Touba moo tax ñu defal lii موعدنا فراتنا كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى توبة إلى توبة إلى توبة كسب سن توبة دفن نيو ماغال سيرن توبة إلى توبة برسنا تكاو تكنم تكاو تكنم jërëjëf jërëjëf jërëjëf